للمنتقى وجهت في الدكار سكرا به قد كبال المكار للمنتقى وجهت في الدكار سكرا به قد كبال المكار jógee ci daara Sëñ Amsa boo jógee ci daara Sëñ Amsa bi dem ci biir entreprise yooyu lii nii diñ ko jomb di nga di nga jomb dem immigration clandestine emprisonnement bi dañ ko jomb ak histoire boo xam ne histoire bi doon histoire remarquable ci biir histoire doon le crise des des années 30 nekkoon histoire bu métti comme fils bi loolu lay représenté comme daara yi comme par exemple ndongo bu fi ñëwoon tey seet ci daara yi di nga am idole boo xamante ni di ko mën a def def waaye après bi nga jàngee ba pare ci daara yooyu comme nii lañ koy représenté boo paree ñu yóbbu la ci seen entreprise nga liggéey ñu wàññi sa chômage ak lu bëri comme ñoom loolu lañ koy doxale comme fichier bi ci loolu lañ koy wax bu fekkee comprendre lu leen ci dara ñu bamtuwaat ko ndax soo mooy suñu liggéey dañoo jog pour yaatal parce que comme bee lu mu wax Touba bokkul ak fii ñu nekk parce que fii dakaaru te dakaar daa vague lu nekk mu ngi fi waaye tey dañu ñëwoon rek pour gën a yaatalaat tey dañu ñëwoon Massalikul Jinaan te immigration bi pour gën a yaatalaat yoon bi ci yaatal bi nag ñun ñoo ngi tënku ci kaw exposé yi exposé yoo xam ne daaye jaalibatul maraaxib xidmatul xadim bu siñ am sax ñum ñoo ko fi def chaque jour képp ku fi new ñu bële yoo xam ne ñoo yor barji bi loo ci comprendre nga woo leen ñoom ñu expliqué la ñooy tuubaat bu baax a baax ci kàddu yi di sakkuwaat seen ñaan ak seen ngërëm jërë ngeen jëf. waaye jur wu jigéen mooy soxna Mariam Jaxate am njàngam sëriñ Hamzatu Jaxate ci nijaayam nijaayam moom la ko sëriñ Touba jox. ngir mu jàngal ko alxuraan ginnaawam mu jox ko sëriñ Alassane Jaxate mu àggalee ko mokkal mokkal alxuraan karim ba bind ko maam kon sëriñ Alassane Jaxate la àggalee ba mokkal alxuraan ba bind ko jaar na ci loxoy sëriñ Mouhamadul Moustapha ca Tindooli sëriñ Mokhtar Dieng Gayaar la ko joxoon maam kon jaar na ci sëñ Moustapha Tindooli sëñ sëñ Mokhtar Dieng la ko joxoon Tindooli la ko joxe mhm. mu jàngal ko xam-xam ba àggal am njàngam xam-xamam ci sëriñ Habibu Mbàkke imaam ci Touba. si si euh, sa xam-xam. si sa xam te lu tableau bi di tekki wala li muy firi. pour mun koo xam. maam bi ci histoire maam jaar-jaar yi sëñ sëñ Ablaat. la lay bi maam kan mooy sëñ Ablaat ak euh, fan la jaar maam ci jaar-jaaram ci mbirum jàngam ak nga xam ne. fi mu jaar ci alxuraan ba bind ko ak fi mu jaar ci xam-xam nga xam ne ci ñim jaar ñëpp àndin nañ leen ko ci dañ koo bind ci wolofal andil leen ko fi mu jaar nga xam ne eh, jaar na ci ay loxo ndax ndax njabootu Sëñ Tuubaa ni ba mu fi kiiyee ni leen sëñ Mourou Moussa maam ki kiiyee woon kiiyee woon nga xam ne ba ci Sëñ Tuubaa da leen a kiiyee ba sëñ Mourou Moussa it da leen a defoon comme njabootu boppam téewu leen comme ay kii mais da leen di leen tarbi ba tax ne ñu ci bari moo leen yaraloon boppam gisoo ko ne am na ci jaar na ci sëñ Mourou Moussa fële tindoori mm-hmm. kon histoire sëñ ab laat boobu lañ ñemeen ci yow. su ma la mënoon a laaj benn affaire borom nataal kii mooy kan. Mhm. kii mooy sëñ Abdoulaye Mbacke maam ñaareelu xalifa sëñ Tuuba nga xam ne lu ci bëri it moo ko euh, defar biir Touba ndax ay jamono Touba mi amoon no fi nu mel te amoon na it yoo xamante ne ngi woon na ko sëñ Abdoulaye moo moo ci taxawoon taxawaay gu mucc ayib gu am solo lool nga xam ne maam ndoxit ay courant yi lu ci bëri def moo moo ko fa def nga xam ne doonoon it ku dëggu it doonoon ku dëggu it ba euh, liggéeyal sëñ Tuubaa rek comme doxinu sëñ Muntaxaa gi nga xam ne dañ ne sëñ Muntaxaa doxinu sëñ Ablaat rek la yoroon nii sëñ sëñ Muntaxaa di doxee nii noonu la sëñ Ablaat daan doxee nga xam ne dañ ne sëñ Muntaxaa doxinu sëñ Ablaat rek la yoron ak dëggu gi sëñ Ablaat ko ko xam xam ko dëggu kon koo koy sëñ parce que donc gis nañ tamit bi. ne sëñ Abdou daf ci ànd ay kilifa aada yoo xam ne ku ci mel ni Senghor. Mhm. loolu muy wane ne moom amoon na yenn relation yu mel ni ak kilifa aada yooyu ndax relation yooyu mën nga ci ñëwaat. waaw ndax euh, boo xoolee nataal bi sëñ Abdou Lahad mi ci ànd ak euh, ndax boo xoolee moom xàmmewut ndax kii Senghor buñ kee ci nuñ ko mën a tuddee président la woon te politicien la woon mais moom xooli ci woon loolu. bu doon noonu politicien mel neneen du ko du du kiitee ba muy ànd moom ndax sëñ Abdoulaye dëgg dëgg sëñ Tuubaa la doon dund te ku ne sengoor xam nga it fi woon murit ñi ba tax euh, sëñ Abdoulaye daan waxtaan ci boo dégloo ay soom yu bëri daana ci wax ci mbirum Senghor ak ya ci aju moo tax ñu andi leen nataal bi nataal bu yàgg la te nataal original yi ñu ngi ko jëlee woon biir Daare Kaamil ndax ci. dil muntaxaa سكرا به قد كبكب المكار للمنتقى وجهت في الدكار سكرا به قد كبكب المكار للمنتقى وجهت في الدكار سكرا به قد كبكب المكار للمنتقى وجهت في الدكار سكرا به قد كبكب المكار للمنتقى وجهت في الدكار سكرا به خد كب المكار للمنتقى وجهت في الدكار سكرا به خد كب mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi ñu bokkal jotaay bi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo boobu kilifa yu baax ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal bi te di leen jéggalu bu baax ndax xëy na mustawa bi nga xamante ne moom la ñu waroon a am ba toog fi seen kanam ji wax xëy na matewuñu ko waaye ñu ngi leen ci jégalu bu baax ñu jégalu ko bu baax a baax di siyaare Serigne Moustapha Diatara mi nga xam ni moo jiite liggéey bi waaye di siyaare borom xam-xam yi fi nekk yépp di siyaare bu baax it ñi nga xam ni ñoom la ñu seqal jataay bi muy soxna maam Jaara Gueye ak soxna Soda Diop ñuy ñaan ci barkeb jataay bu tedd bi xam ni moom lañu ñu jagleel maam jaara ñu ngi ñaan suñu boroom mboolem li ñu fa def ci aw yiw ak xéewal yàlla jotale ci soxna si di ci jaare di ñaanal cheikh Mouhamadul Mountakha li nga xam ni moo nekk ci boppu njaboot ñaan sunu borom dëgëral taxawaayam ndax ku ne ku ne gis na yàgg naa ami taxawaay waaye li nga xamee ni jiite na liggéey bi naka jekk jiite woon na ko bi ko ay magam bi ko ay magam di nekk ak i baayam waaye li nga xamee ni gisatuñu ñooñu ñëpp mu nekk ci kanam njaboot bi tey la taxawaay boobu gën a fës rawatina ci wàllu xam-xam te loolu ku ne xam na ni mooy jumtukaay bi njëkk ñu gën a mën a liggéeyal sëriñ kon mbooleem li nga xam ne ay bëbëtam la ci yàlla ko waxtaane ci soxna si nag mooy jëm rek ci ay jikkoom dañu gën a ñëw ci jikkooy soxna si xëy na bu dee ci xamle yi ak yooyu dañ ciy jaar rek jàll mooy xamle bu soxna si gënee àdduna ak fu mu jànge ak waajuram ñaari waajuram ak fu mu yaroo yooyu dañ ciy jaar jàll waaye dañuy taxaw ci jikkoy soxna jaar ndax loolu moo am solo ndax jikkoy soxna si ñépp dañ ko war a roy muy góor muy jigéen waaye rawatina jigéen bi ndax yàlla daf leen a baaxee ñu am royukaay bu mat sëkk royukaay boo xam ne jërul ñuy jéggaani feneen kenn ku ñu war a roy soxna si ab royukaay bu mat sëkk la ci wàll yëpp amul jenn jikko joo mën a tudd ci jikko yu rafet jikko yu baax yi nga xam ni ku mas a baax ku ne moom la la moom nga moo tax nga baax ku mas a baax ku ne jikko yu rafet moo tax nga baax jikko yu rafet yooyu nga xam ni ku mas a baax ku ne moo tax nga baax nag jikko yu rafet yooyu yëpp soxna si daf ko dajale ñu mën a jàng nag ci ak dundam kon li at yi néew néew ci kaw suuf nga xam ni ak dëkk fi at yu bari teewul jëf ya rëy na loolu liñ ci mën a di di jàng mooy xam ni dund at yu bari du mooy moo am solo waaye li am solo mooy fexeel ba àdduna diggante li nga fiy jaar nga fas ni danga dox ci kaw aw yoon ba sol jaar ci genn gerte noppalu mooy li yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon kun ka annaka xaribun aw mooy yow mele ni dangaa jaar ci àdduna ni nga xamee ni noonu la nit di jaare ci aw yoon ba sonn jaar ci genn kër bi noppalu mel na ni kon soxna si xamoon na li ko bàyyi woon ci kaw suuf te mooy jaamu yàlla kese kese wéetal ko te mës sa jóg ci lool mboolem bindkat yi nga xam bind nañu ci ak dundam te bari wu ñu xay na ci liñ jot a gis ñépp bu ñu bu ñuy wax ci moom li ñuy njëkk a wax rek mooy ab jaamu yàlla la ku sàmm la waaye ku ragal yàlla borom boo demee ci minul bàkk xadim sëñ Basiru andi na ci tuuti danañ ci ñëw incha allah waaye ci mbindum sëriñ Masamba Mariam moom itam andi na lii lu mel ni sëñ Basiru wax ci maam Jaara kon xam naa ni incha allah dañuy delloo kàddu bi soxna maam Jaara ko defee ñu doog yàlla da ko defal baaxe ko ay waajur yu baax yoo xam ne bu ñu leen tuddee ñëpp xam leen ci wàllu tasaare diine te mooy nit ñoo xam ni dañuy dunde seenu ñaq di jàngale diine te mooy alquran ak xam-xam di yare muy diggante sëriñ Muhammad Buso ak soxna Aysatu Waalo Mbakke soxna si bàyyam ñu ngi tudd sëñ Muhammad Buso doomi Hammad muy doomi Ali bu ñu ko doon topp di topp càllale bi dañuy dem ba ca sayyidatuna Fatima bintu rasulillahi sallallahu alayhi càllale gi sëñ Moussa ko ci mbind mi ma dafa dem ba ci sayyidatuna Fatima kon foofee la sëtoo waaye muy doomi itam soxna aïssatu Waalo Mbakke soxna aïssatu Waalo Mbakke di doomi Ahmadou soxna Bousso Ahmadou soxna Bousso doomi Mam Maaram Mam Maaram mooy Muhammadul Xayri bu ñu waxee Mam Maaram daanaka du jar ñuy jàll maam maaram ku ñuy wax abibullahi moo ko jur abibullahi moom muhammadul kabir kon te askan yooyu nga xam ni boo jaaroon ci wàllu maam maaram ñoom ñëpp daanaka ay jàngalekat lañu woon ak nit ñuy tasaare diina ji di dunde seeru ñaqare kon ñaari askan yu baax yooyu muy bu mbusóobe ak mbakke ci la soxna jaara feeñ moom nag mi ngi feeñ Mbusoobe Jolof Mbusoobe Jolof fa la ganee àdduna ci atum 1249 tolloog 1833 ci la ganee àdduna moom soxna si euh, waajuram yooyu nag ña nga bàyyi ko woon ca fa ñuy wax euh, Fuuta Tooro ca dëkk ba ñuy wax Gollare fa la bàyyi ko woon doon ay nit ñu sell yoo xam ni ay nit ñu tedd lañu nit ñu ñu xam ci euh, li ma wax léegi ci wàllu xam-xam ak sàmm ak dunde seenu ñaq ñoom ci loolu lañ nekkoon naka jekk maamam yëpp wet goo ci xool rek ñoom ci loolu lañ nekkoon mën naa ci joxe euh, misaal ci loolu mooy waajuram mu jigéen soxna aïssatu Mbacké ab kat la woon soxna aïssatu Mbacké mi ñu xam rek muy soxna aïssatu Waalo ab kat la woon euh, ku kat la woon boo xam ni daf daa yare bu ñuy wax yar jàng tax bu ñuy wax jàng yara tax waaye daf daa yare ab kat la woon bokk na ci wane yar ni ab yarekat la woon mooy moo yar maam Anta Ndiaye Mbacke mi nga xam ni mooy waajuru moo yar soxna Anta Ndiaye Mbacke mi nga xam mooy waajuru maam Cheikh Anta ak Serigne Afiya ak Serigne Mbacke Anta soxna si moo ko yar soxna Aïssa doo ko yar ci daaraam la génne ndax nit bu doonee ab yarekat ngir ñu wane ni ab yarekat la dañ naan ana ki mu yar te buñu joxé misal ci di nga xamni euh kon amna lu mu jël lu bari ci ki yar te moy soxna aïssatu Waalo Mbakke soxna aïssatu Waalo Mbakke nak guddun fan la dund na téeméeri ak lu tek ku gudd fan la lol seigne Moustapha Abdourahmane Lo néna dun dun ci dundam googu nga xam ne li muy gudd gudd fan teewul bis bu ne ci ak dundam dafa daan naafila kaamilu alxuraan boo xam ne ñaari rakkaan la koy def te loolu nee na def na ko lu jege téeméeri at yoo xam ni moom soxna Aysatu Mbakke soxna Asawaalo saxal na naafila boo xam ni guddi gu ne ñaari rakkaan lay naafila guddi gu loolu li muy tekki mooy ab jaamukatu yàlla la woon maanaam bu mënoon a bu bëri woon ay julli ak ay koor moom soxna Aysatu Mbàkke soxna Aysatu Wàllo ab yarekat la woon dafa daan jàngale xam-xam wax nañ boo ko mësaa gis ay ay jàllaa lay sol doon nit ku ragal yàlla waaye ku bëri xam-xam waaye ku sàmm koo xam ni daf daa yare daaraam ay ay nii ay ay ay soxna ñoo fa nekkoon yoo xam ni daf leen daan yar ci wàllu diine mooy njàngale njàngaleem diine ci leen leen daan yar ci environnement boobu nag muy muy bii a boobu ci la soxna ci feeñ mam jaar ci la kon soxna jaara dafa gëné aduna ci kërub daar kërub daara la gëné aduna bi mu gëné aduna wajurum goor moko tambalil njangum alquran njàngum alxuraanam muy sëñ Mouhamad Bousso moko tambalil tàmbalil mu mu tambalé ci mom njangum alquran ba yalla dogal mu teel a wattu alquranul karim soxna si ku teel a wattu alquran ci at yu teel la wattu alquran daanaka wax nañ ni weesuwul daanaka fukki at bi muy wattu alquranul karim moom soxna jaar waaye mu soobu ci njàngum xam-xam ci biir njàngum xam-xam moomu nag lenn ci xam-xam mi ngi ko jànge ci sëriñ bu sóobe mi nga xam ni magam la ñu bokk lépp lenn li mi ngi ko jànge ci sëriñ tafsir mbàkke ndume mi nga xam ni euh, mbokkam la sëriñ tafsir mbàkke ndume euh, mbokkum soxna si la moom lenn ci xam-xamu soxna si ci moom la ko jële bokk na ci xeeti xam-xam yooyu nga xam ni moom la doon jàng nag mooy ci wàllu xam-xamu sariya te mooy lu mel ni tawxiid ak lu mel ni fiq ak lu mel ni tasawuf ak yeneen ni xeeti xam-xami diine yoo xam ni doon na ko jàng ni mu farloo woon nag ci wàllu sàkku xam-xam bi muy jàng looloo tax mu teel a am mustawa bu kawe ci niveau maanaam mu am niveau bu kawe ci wàllu xam-xam mu teel ko am ba tax na bi muy am fukki at ak juróom-ñaar dix-sept fekk na mu jàng ba jàng ci wàllu fiq muxtasaru Cheikhul Khalil ku ne xam na ni muxtasaru Cheikhul Khalil euh, bokk na ci bu dee fii ci programme yi ñu xam ci euh, Sénégal walla ci fekki Touba bokk ak la ko wër mooy fa la programme bi ci muxtasaru Cheikhul Khalil bokk na ci niveau bi ci gën a kawe kawe Cheikhul Khalil ci wàllu rawatina ci wàllu fiqh waaye bi muy am fukki at ak juróom-ñaari fekk na mu jàng yeneen téere yi ci aju yu mel ni maqaamaatul aariin ak lu lu lu mel ni wabnul mahibi bi nga xam ne day jàngale si dana def jàmm ci àdduna bi fépp fu jullit nekk di sant borom bi subhaanahu wa taala mi ñu boole ci jotaay bu sell bi di jaar ci Serigne Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal di ko wax ni ayyadahu llahu wa nasara jaar ci moom nuyu mbooleem njabootu Serigne Touba radiyallahu anhu di wax ni tey bés la boo xam ni ni ko sëñ Muntaxa waxe ñu koy nuyu bu baax bés bu ñu tuddee soxna jaariyatullaahu maryaama buso la xarwa la bi bés jomb ko ndax ku am lu day ni cheikhul xadim mu assatu tariqatil muridiya soxna soosu mérito na lu mel nii loolu nag ab soññe la ci bépp jigéen boo xam ni bëgg ngaa aw ci yoon wu baax te xam ni liggéey la yàlla yi fay man amila saalihan min dakarin aw unsa wa huwa muminun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم amalahum بما كانوا يعملون كيف كو ديف لو باخ رek mo xam julit la boo nekkee jullit te gëm moo xam góor nga a jigéen suñu borom dina la fay fay bu amul fu muy yem loolu nag li muy wane mooy amul xàjj ak seen ci suñu borom góor ak jigéen bés bu nekk dama koy melal ci ñaari dàll yi ma sol ni góor ak jigéen ñoo yem dañoo nuroowul ndax ñaari dàll yi ñoo bokk pointure waaye boo jëloon ndijoor bi sol ko ci càmmoñ bi li nga bëgg a dox mu tëla kon ku nekk ci ñun yàlla daf koo binde lu mu wara a doxe ci kaw suuf waaye yàlla xàjjalewuñu fenn ci jëf ju baax ci li muy fay moo tax soxna jaara bu so yàlla na ko yàlla fayal mu gane àdduna yàggu fi ndax li mu dund bariwul xam ngeen ni 1833 ba bu ñu ko dee lim muy fanweeri at ak ñett soxna su fi jógee fi bàyyi ci lu nii li muy wane rek mooy liggéey bu tey nag ñu am suñu ay gan yoo xam ni ñoom la bokkal jotaay bi leen rek ba ca kanam ñuy nuyu nag suñu rajo bi nga xam ni moo ànd ak ñun muy rajo Best FM ñëw ànd ak ñun di jël émission bi pour bëgg waa Thiès am ko direct ci seen rajo boobu nga xam ni fa lañu ànd ak ñoom di liggéey ak télévision bu ñuy wax Thiès TV télé bokk ñu leen di nuyu ànd ak sëñ Yamar yàgg baax di ñaanal maam seen ma nga xam ne mooy njiitu rajo ba ak groupe média bi ñu fi fekk yépp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax su ko defee incha allah gan yi ñu fi àndal tey soxna Soda Diop moom mooy jël ñaareelu kàddu gi waaye Serigne Thierno Diop mu ngi ci wetam moom la ñuy njëkke ak moom mu xamal ñu kan mooy soxna jaara ñetti tomb dinañ ci ànd ak moom incha allah moom dinañu wax kan mooy soxna jaara soxna jaara fu mu yaroo ba mel ni mu mel doon modèle une grande dame modèle pour mën a créer une jeunesse aspirante ndax bu ñuy wax tàggat doom walla nit ku baax duñu ci ginnaawal way bu jigéen ndax moom mooy ki nga xam ni ci moom lay njëkke kon incha allah man Thierno dinañu xamal kuy soxna jaara fu mu yaroo fu mu jàngee incha allah rabbi su ko defee ñu jox maam kàddu gi mu nuyoo mbooloo mi kon maam Thierno tafaddal mashkura yara ay njabootam bu toogaan daan leen wax ni kaana min da'bi saalihiin qiyaamu layl bokkoon na ci aaday gaa yu baax yi jëpp guddi di julli ba nee nañu Serigne Touba radiyallahu anhu bi muy tàmbali julli guddi lislaam sax ci zaahir toggagu ko jëf maanaam ay atam néewoon na ci zaahir muy jóg di julli guddi loolu fan la ko jële daf ko dégg yaayam di ko ko sax di ko ko wax waaye juróom di ko ko sax di ko ko wax moo tax toujours damay wax ne ñun yaay yi nañu defar suñu comportement ndax xale yi ñooy seen modèle bi njëkk booy nàmpal sa doom daf lay laaj yaay kan ngay nàmpal sa doom di jew di nampal sa dom di wax lu sa yon nekul di nampal sa dom di saga ngeen bal nga gis ko xamni ni doomam day saga mu japp ko di ko diko di mani waw kan lay bàyyi saga yaa ngi koy dóor di saga diko wax bàyyi saga ngir ñu delo ci wat soxna jaar dal soxna soda moy fokk ñu delo ci wat mam jaar bu so comme ni nga ko waxee jërëjëf أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يقول قولي أيها الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aleykum salaam maa ngi nuyu ñëpp soxna maam jaare jërëjëf may nuyu ñi fi teew ñëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol machaayix alkiram ñi fi teew yépp di ko teg tamit eh, ci loxol sama mbokk jigéen ñëpp ñu tasaareel ma ko mboolem waa àdduna bi may am mbégte lool nag ci wax dëgg bokk ci lu am solo lii nga xam ni day ñaari mbégte ñu iqtibaas leen bi sallallahu alayhi wasallam waxoon keroog ba ñu fatxu xaybar tombeeg jaafar bisi mu ne ko la adri bi ayyihima usar bi fatxi xaybar am bi rujuu jaafar aw kama qaal ñun tamit mbégte li ñu am mooy jumaa ju mag gi nga xamante ni ñi ngi yu addu min akbar jumaa ci xarb ifriqiya ñu nar koo ubbi incha allah fii ak ay fan waaye ñaareel mbégte mooy lii ñu fi doxale muy lu am solo di jël bési di ko jagleel euh, ñu baax ñi ci yoon wi ñu leen di fàttaliku loolu ñaari mbégte yoo xamante ni am nañ ko ci jotaay bi balaa may jàll may nuyu sama ustaaz sama kilifa الشيخ مصطفى جكرا ak mboolem wa comité lajnal almiya bi nga xamanteni ñom la bokk liggey bi muy sama kilifa go xam nak ma tok ci kanamam di waxtaan ci diine xana rek bu ma juumee mu gaganti ma mom ak cheikh Sidil Muxtaar ndax te ñoma jàngal seigne cheikh mustafa moma jëk jox kere may jàngale ci guy ndaween bobu may tout tànk ma sha allah ci madaris azhar muy lo xam duñ ko faté mukk di ko fàttali ñu am mbégte lool ci bés bi nga xamante ni moom lañ jagleel soxna su màgg sii di sayyidatuna Mariam jaaratullaahi Buso ndaxte fàttaliku ñu baax yi alquran moo ñu ko digal faqsusil qasasa laallahum yatafakkaruun yatadakkaruun watlu yi ngay dégg ci alquran yépp wazkur yépp borom bi da koy wax ngir ñu fàttaliku ñi nga xamante ni ñoo fi rombeen bi ñu baax ñu mën a roy ci ñoom ndax fàttaliku bi kese du doy tudd ay jukko kese du doy tudd ay jukko tudd ay melokaan ñu fetta su daanu lool du doy waaye laallahum yatadakkaruun aw yatafakkaruun euh, moo tax ñu jagleel soxna soosu nga xamante ni lépp luñ ko jagleel rek lu lu mérité la muy daaray alquran jee ca poroxaan muy màggal yi muy bës yi ñu koy jagleel ba ci bisub tey jii ci 2019 bi bis bu am solo bi tombee jëf ju am solo ji ay njàngat yu bëree ngi ci sama mbokk jigéen ñi macha allah taala ñuy ñaanal ah, Cheikh Mouhamadul Muntaqa Bachir yàlla na fi yàgg te yàlla na ko yàlla may gudd fan ba mu yeggale naal bi nga xamante ni moom la naal ci lislaam ku ne xam na ko ci bëgg xam-xamam ku ne xam nga xam na ko ci fonk borom xam-xam yi ku ne xam na ko ci yéene jëm am ci Touba mel ni Basra ak Kuufa te mu nekk ay naanukaay yoo xamante ni fa lañ daan naanee xam-xam macha allah taala. 20 minutes moo des ci kaw. sëñ euh, soxna si soxna Seydatuna Mariama Bousso nag waxtaane ko jamono yëpp la baax waaye jamono ji daf cee rawati jamono ji daf cee rawati waaye fan yi daf cee rawati ndaxte ku ne xam na ni noonu lislaam yi fu ñu toll ñu ngi dugg ci réew yi di xeex ngir daaneel lislaam jaaree ko ci ñaar yi nga xam ni ñoom la Cheikh Moustapha wax léegi muy jigéen ñi ak ndaw ñi te daanaka dama naan bu ñu amee jigéen ñi rek am nañ lépp bu ñu amee bu ñu amee bunt ci jigéen ñi lu ñu bëgg dinañ ko am ndax jigéen mooy ndey jigéen mooy ki nga xamante ni moom mooy uh, yar Sayyidatuna Maryam Bousso la nekkoon jigéen joo xamante ni uh, comme ni ko Cheikh Massamba Marème Mamadou Penda bu yo waxee rek كريمة نسبا أصلة وطنا شريعة نسبا كريمة نسبا تفضيلها بانا loolu Lalu tënk yi nga xamante ni moom la sëñ Thierno doon wax léegi ci ci ñi ko yar fi mu eh, wal baladu tayib yaxruju nabaatu bi idni rabbihi waaj alquran xam nga alquran moo fa moo fa fekk alquran yoo xamante ni daf xam naa ni comme waxtu wi dafa gàtt jikko yu bëri na trop buñ ko doon lim duñ fi jóge bind nañ buñ ciy bind ay téere du jeex buñ ciy waxtaan du jeex waaye ni Seydatuna Mariama Bousso doon dundee lislaam daf ko jàng sëñ na wax ne ko léegi daf ko jàng jàng alquran ba mokkal ko jàng euh, euh, téere yu mag yi nga xamante ni moom lañuy ñuy jàng ku daa am xam-xamu fekk xam-xamu tawxiid xam-xamu xadiis ba man ko door ko mën a pratiquer lépp loo xamante ni jàngoo loo ko doo ko mën a xam man jahila shay'an aadaahu kon képp koo xamante ni soppeb sayyidatuna Maryam Bousso nga te ñu baax lool nag wax dëgg yàlla ñi ci bâche bi ak ñi fi newul ñi ci tànt bi ak ñi fi newul ne ci seeni kër ak ñi newul ci réew mi ñu bëgg sayyidatuna Maryama Bousso ba mu jaral leen lu nekk waa ji ku bëgg nit danga koy roy soxna yi seen liggéey rafet na lool macha allah seen taxawaay ku ne xam na ne lislaam jigéen mosu cee des ginnaaw tëpp ca suñu yaay Khadija ba ci suñu maam euh, ba ci suñu maam naa Mariam Bousso taxawaay yi ñu mës taxaw ci lislaam jigéen mosu cee des ginnaaw ba ci suñu bésu tey jii jigéen ñi lépp ñoo ci man lépp ñoo ci man daayira yi seen i daayira foo leen fekk dañuy teew di teewal lu dee cotisation kenn du leen ci jiitu soxna mam Jaara ge wax na ko léegi bu dee ni nuróole ay mbubb ken du ko ken du len ci jitu jël sen alal di ca def ken du len ci jitu waye nak xeyna sax ñi ngi roy soxna si xëy ñi ngi koy roy waye buñ bu yokko tamit du wàññi dara gëna a roy soxna ci ci nekk wayam na mu nekkee woon ndax gis nañ ci minalul baqil qadim شيخ محمد البشير رضي الله عنه دون فوخنا كانت صالحه عفيفه دينا كثير الصلاة والصوم والصدقة مستسلمة لربها قائمة بواجبات دينها بينها وبين ربها وبينها وبين شيخها أو كما قال لولو رك من نانتي ديف وقتان سبو بان غور بو جيخ سخنا سي كو كو امون دين لا كو بري وون لوم دان جولي لا يام تون رك سي وقتي جورومي سخنا مام جارا واخ نكو جولي بان تودي لا دكاندو يالا ndax بري لوي سجوت ndax ku ne xam ne ni saa boo sujjootee jege nga sa borom loolu rek dafa doy sëkk titre ci ne képp ku nekk euh, taalibeb Sayyidatuna Mariama Bousso nekk soppeem waraloo yam rek yow ci julli juróom ak sunanu rawaatib ñun ñi nekk ci bâche bi ñëpp war nañ koo farataal war nañ koo fonk laa bëgg a wax gannaaw mu jullee farata yi ba pare ak sunanu rawaatib képp ku nekk fii ci tànt bi war nañ bu ñu jógee bis ci ki ñu commencé ko julli bu ñu julli ñu ñu lijjanti ba xam ñaata ñooy sunu ñu teg ko ca ndaxte ki ñuy roy ki ñu bëgg ki ñu sopp kooku jaaratullaahi la tuddoon ndax kaanat kasiratu salaat da daan julli fu mu toll da daan julli wa sadaqa da daan saraxe fu mu toll da daan saraxe lu mu am da ko daan joxe mu sa dencal ëllëg dara ah, soxla wutoon wurus comme ni ko waykat yi di waxee soxla wutoon xaalis gis nañ ci nettali ni nga xamante ne noonu la dëkkee woon ak dama jéelale sax taalibe ndongo yeeg dama jéelale sëñ bi waaye ñun ñi nga xamante ñun moo gën a diis si ñun li gën a diis si ñun jigéen ñoom aawa yi aawa yi ñoom ñoom bintaloo li gën a diis si ñoom tey mooy am ku nekk ci kër gi di leen wéttali ñu bokk sëriñ loolu moo gën a diis si ñoom tey jii nii lu ñu bëgg-bëgg maam jaara ñu bëri si ñun royu ko ci côté boobu ah moo fii jël sa mbub mu rafet jël sa or Euh, jox sa kan moo fi jël tey sa mbubb mu rafet sa jeesneer ñaw ko ba mu rafet wala jël say gànjar jox sa wujj yi nga xam ne moo nekk sa biir kër ne ko sañseel te yow nga toog ñi ko fii def ci aawo yi de bëriwul donte am na sax waaye xam naa ne bariwul kon roy gi ñu war a roy soxna jaara ah maanaam bëgg gi ñu bëgg soxna jaara rikkuwaay jaaratullaahi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci daayira yi te jàmbaare ci bu mu yem rek ci li ñu wax léegi waaye nañu jéem a gëstu jikkoom yooyu nañu jéem a jàng suñu diine nañu jéem a jàng siiratu sayyidatuna bu Buso njàng moomu donte programme lu ñu ko sax ci suñu programme national ñun ñu programmeel ko suñu bopp chaque àllarba wala chaque dimanche jour bu ñu def suñuy daayira yi ñu jël benn jikko ci jikkoy Sayyidatuna Mariama Bousso yi ne moom la ñu fas yéenee jàng ba xam ko at mu ne ñu jël benn jikko ne moom la ñu fas yéenee roy ba at ma dellu siwaat loolu bu ñu ko defoon euh, niru niru lu ko dinañu yomb lool bu ñu ko niruwul tamit ñu jéem koo niru maanaam euh, dox ci euh, ala xutaaha sur la trace de Soxna Jaara teg suñu tànk ca na nga xamante ni noonu la doon dundee buñ ko mënta melit ñu jéem ko nañu ko jéem soxna maam Jaara wax ne léegi ne Sayyidatuna Maryama Bousso ba mu jàngee ba xam ni yàlla sun ba subhaanahu wa taala moo digle ne na jigéen muuru ba mu gimmee rek jàng loolu gis ne yàlla subhaanahu wa taala moo wax ni yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'i l-mu'miniin yudniina alayhinna min jalaabiibihinna keroog la daal di dagg mël faam sol wala mu jël kolam ndax soo ne mël fa sax mën nañ ne aaday naar la waaye soxna jaara dafa nekkoon Euh, ku daan topp boroomam ci muuraay waaye di ko def comme ni ko africain yi di defee comme ni ngeen koy defee nii ñun africain yi mën ngaa sol sa lu la neex sol sa ndoket sol sa grand bu buñ bañ a xotti mbag euh, côté ya waaye Euh, jël sa muuraay muuru comme ni nga xamante ni noonu la ko sëtam yu baax yi toppoon ci ginnaawam daan muuroo ñoomin soxna Maymunatul Kabir euh, ak ñoomin soxna Musleek ñoomin soxna Moomi ñoom ñëpp gis nañ niñ daan muuroo daawuñu sax muuroo ay kol yi asli wala ay yeneen façon kol yi xew léegi waaye ay sëri dënk sax far lañ daan muuroo dañ daan solo suñu colo africaine bu ñu kenn gëmloo ne africaine yi daawuñu muuru nañu xool soxna Sayyidatuna Mariam Bousso ay nataalam nañu xool ñu baax ñooñu seeni nataal kenn mus leen a gis ni ñu kenn mus leen a gis sol lu yaraax wala ñu sol lu gàtt dañ daan sol comme ni africaine di solo mooy sol grand boubou wala far sax ñoom dañ daan jiital camisole ci biir daal di jël grand bu teg ci rawalante seen ñaari sër daa ñu wadoo sa benn sër ñaari sër lañ daan rawalante dooroon ak muuru boobu asli yi xewul wala façon kol yi nga xamante ni moom it bokk na ci li nga xamante ni moom la ñuy naxee kol gu cher a cher te fajul aajo yi nga xamante ni moo tax ñuy wax kol da yoon salaa salaam surut yi nga xamante ni moom la ñu digal ne jigéen buy muur aw yaramam noonu la war a mel bu ñu moytuwul deneen ni ñi ngi muur suñu yaramaay fekk ne dañuy nax suñu bopp kaasiyaatin la ñuy nekk waaye aariyaatin sol yëre bu cher waaye mu nekk yëre boo xamante ne da ngay rafle ne damay muuru waaye ñu wutal la kol boo xamante ni ku ko ku la ku la xool seen la nekk nga la nga sol te biir lépp loolu taxul ñuy wax muuraay Sayyidatuna Mariama Bousso de daawul muuroo noonu suñu maam Jaara Bousso bi nga xamante ni moom la ñuy roy daawul muuroo noonu daawul soloo noonu jikko yi nee naa la bëri na torop macha allah tabaaraka rahmaan waaye ñu dañuy insister ci ñaar yooyu rek muy njàng ma waaye muy tamit nekkinoo muy melokaan wa jàng suñu diine tare du wees dañuy wax toujours ne jàng wees bu ñu jàpp ne mukk ne léegi mage nañ jàng wees nañ déedéet sallallahu à l'âge de 40 yàlla ne ko iqra bismi rabbik jàng ba xam kan mooy sa borom jàng ba xam li la andi ci àdduna bi jàng ba xam ne àdduna bi ñëwuloo fi rek ngir euh, lekk naan euh, ëllëg ñu suul la mu jeex déedéet jàng ba xam ni dañu ñëw pour benn mission Sayyidatuna Mariama Bousso mii ñu bëgg di ko roy ba mu xamee loolu xamutoon ñaata at la fiy dund de waaye keroog la daal di laxasaayu rek takkaayu ba atam yi li muy néew néew néew népp ku ne gis na lim fi bàyyi macha allah muy loo xamante ni sellal moo tax mu barkeel te mu ko doon def rek ngir borom bi subhaanahu wa ngir xam ne ndigal دغا وجوت في الدكار سكرم به قد كبكب المكار للمنتقى وجوت في الدكار سكرم به قد كبكب المكار